salaamaaleykum mbokki Kaolack salaamaaleykum mbokki Sine ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ñëw nag fii nga xam ni fii mooy xolu Sénégal fii moo doon capitalu siin Saloum fii mooy capitalu bassin arachidier fii ba colon yi di fi nekk comptoir yi fi nekkoon dafa jëmmaloon Kaolack comme plaque tey jii waa Kaolack seen xol neexul su fekkee dañu xool li nga xam ne moom la nit ñi di dundee muy mbay mi mbay mi dafa loof fii rek xool leen ñaata usine fi amoon usine yooyu la ak lan la ñuy tourner léegi est-ce que gerte gi ñuy tourner fii lay jóge mais surtout ñiy bay dañu sonn amuñu semence yu baax engrais bi bala moo ñëw fekk mbay mi sori lool amuñu équipement agricole mais surtout problème bi gën a mag pour ñoom mooy nga bay ba sonn ñu fay la sa gerte njëg goo xam ni doo ci gis sa bopp ma ni Khalifa Sall président la République du Sénégal dana xoolaat njëgu gerte ci prix boo xam ne incha allah baykat bi dana ci gis boppam Kaolack doon plaque tournante transport terrestre lu am solo la fi kuy dem ci Casamance kuy dem Mali kuy dem Guinée kuy dem Guinée Bissau ñëpp fii ngay aw gis ngeen parc automobile bi ni mu mel kersa la mais de manière générale transport en commun dañ ko war xoolaat yeesal ko chauffeur yi apprenti yi même ñi moom oto yi gisatuñ seen bopp ci seen activité boobu nan lañ leen dimbalee ba mën renouveler parc bi de manière à ce que sécurité routière bi gën a dëgër xale yi dugg ci cag-cag yi dañ leen war jàppale mu doon une vraie exploitation boo xam ni xale yi au lieu que ñu doon dawalkatu cag-cag rek dañuy doon ay propriétaire dañuy doon ay entrepreneur mais surtout Kaolack nekkoon plaque tournante pooru Kaolack bii ëpp la waroon doon doon ëpp boo xam ne dafa waroon tax ba Kaolack doon vraie ville carrefour nan ngeen bëgg Kaolack développé wu su fekkee infrastructure de base yi fi war ne dara sottiwu fi Khalifa Sall président de la République dana fexe ba Kaolack jëlaat place am de plaque tournante du transport de la vie économique fii ci réew mi maa ngi leen di gërëm leen sax